ولتكفني بالرسول لله كل بلاء إياك أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا خديما قد حوى النعلام لجد بعلم وسعي لا سمادبا ولتكفني نقد عهد وسل العللاب رل البرايا وسخلي ما سابدا من خير مكر خفي واكفني الخجلام هني عن السر واجلب للخيور معا ولتكفني خزي والأقدار والوجلام ملك يميني وقلبي ما أكون به كالبار جودا وفيدا واكفني الكسلا waaw ah, jërë ngeen jëf mbokk yi waaye jërëjëf sëriñ Mor Kassé ci njàng mu am solo moom nga xam ne andi nga ko muy bismillahi lazi quranu xad nasala kon mbokk ko waxee rek ba tey yéen a ngi seetaan seen télévision Mafatul Bichri ci euh, fi nga xamante ni mooy Touba waaye ci màggal gi nga xam ne mooy màggal Samoul Fadal xam naa kon ma laa bàyyi rek dañ ñu indil benn wala fal ci sëñ Fallou jërëjëf mbokk yi mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel gis ngeen bés baa ngi noonu démb ñu màggal ko fii ci Touba te ñu dem ci cérémonie officielle bi gis ngeen sëriñ baa ngi noonu li soog yëg ci sëriñ Abou Baraka mooy soog a yëg si noonu ànd ak bi mu àndal ñu mën ci ràññee seen Cheikh Oumy suñ maam Mor Mourtada moom Cheikh Mouhamadou Fadel suñu baay Abdoulaye Mbaye Peex moom mooy wax noonu di présenté gan ñi xaaral ñu dëgte leen suñu baay Alaaji Mbaye Peex ku ne xam ne diggante sëñ Fallu Fallu ak sëñ Baara sëñ Baara la wuutu te moom la sëñ Fallu tuddee Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi ngi nii toog àndante ak sëñ Habib Diop àndante ak sëñ Khadim Diop ñoom ñëpp ñu ñëw teewal fi sëñ Moustapha ànd ak sëñ Modou Aïssa rakam may leen ma tuuti waaw waaw waaw dañuy dañuy jëkkante waxtaan wi te tisbaar jaa ngi jot. njaboot gi kon sëñ bi nee ñu jëkkante sëriñ Abdou Fatah mu ndaw dafa mi war a jàng alxuraan dina ñëw sëriñ bi njabootu sëriñ Touba gi ñëpp a ngi toog sëñ Omar Bousso xalifa sëñ Mbacké Bousso mi ngi fii sëñ Mansour Sy xalifa Pire mi ngi fii sëñ Jibi Ndiaye Warak mi ngi fii sëriñ Moustapha Kounta teewal waa Ndiassane sëñ Abdoulaye Seck teewal waa Ceno ba ñoom ñëpp Mbakke ñi ngi fii xam nga nag président de la république yebal na délégation bu am solo Maxtaar Ba moo ko jiitee maxtar Ba taalibe Sëriñ Tuuba la bi mu jébbalu ci sëñ Abdoulaye dafa faq bool indi jox boppam Cheikh Abdoulaye Lahat maamam Boursine Coumba Ndofféne nit moo seeraloon Xaadimu Rasuul mi ngi ànd ak Omar Gueye ministre pêche waaye mi ngi ànd ak vice président assemblée nationale questeur Awa moom itam mi ngi toog mi ngi ànd ak gouverneur de la région mi ngi ànd ak Isma Dioum mi ngi ànd ak Adjatou Ndeye Ndeye mbay moom itam au conseil de la république Mor Ndiaye au conseil de la république ñoom ñëpp mi ngi àndanteeg ñoom ak soxna ay Gaye ak délégation bu yaatu ñoom ñëpp dikk nañu tubarkalla sëñ bi leeral la délégation Ousmane Tanor Dieng ki ko jiite mooy député Cheikh Seck Cheikh Seck député moo ko jiite mi ngi mi ngi nii toog di la leeral ni délégation moom Diagne Fada ñoom itam ñëw nañ fi sëñ bi leeral la délégation Idrissa Seck sëñ Fallou Galas Kalto moo ko jiite mi ngi nii délégation Pape Diop bokk gis-gis Cheikh Abdou Bara Dolly député assemblée nationale délégation PDS ki leen fi teewal sëñ Cheikh Abdou Mbacké député assemblée nationale mu sëñ Bara Dolly ñoom ñëpp ñëw nañu délégation APR bi bi ñëwee fi lañu fekk soxna aw a Diop moom itam mu nekkal président ca France ànd ak jigéen ñëpp dikk nañu kon soxna Mariama Sarr ñëw na sëriñ bi sëriñ buub tubaar ana ki jàng alxuraan dina ñëw Serigne Mbuub Cheikh sa ak waa inaak waa jàppoo Cheikh Cissé ñoom ñëpp ànd nañu dikk ak bokk yi aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi ñu yéene jublu ci liggéey bi tàmbali jox kàddu gi Cheikh Abdoul Fattah Mbacké di sëtub sëñ Fadilu sëriñ Fadilu Mbàkke bu Cheikh Abdou Fatah jur ko mu génn ci daaray Cheikh Ahmadul Badawiyu ci nga xam ne moom lañ doon leeral fii démb ci taxawaayu xam-xam bi nga xam ne mawdu ren bi nga xam ne teemu ren bi ci màggal gi mooy xam-xam mu dëppoog xalifa général di murid sëñ Muntaxa yàlla na fi ak ci wér njëkkee tàmbalee loolu léppam jëm ci xam-xam moo waral màggalu sëriñ Fàllu gi ren ñu jël lépp aj ko ci xam-xam conférence yi sët yi doon def ak yi ñu doon def tournée ci biir dëkk yëpp danañ ci ñëw lépp ñu aj ko ci wàllu xam-xam looloo waral nag xale bii di wax tey mu génn ci daara joo xam ne nii lu mat ñaari junni nit ña nga fay jànge ca ndindi mu am internat am itam franco arabe góor ak jigéen sëñ Ahmadou Badiou mi yor ko mi jiite comité d'organisation bii xale bi génn ca daara jooja moom lañ bëgg a jox mu wubbi alquran ñu door a ñëw ci programme sëñ bi tafadal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 باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 ak sëñ jiiri Mbàkke moom sëñ Moodu Moussa Falilou ak sëñ Abo Say moom sëriñ Cheikh Say mu sëriñ Soyibu ak sa xaritu bopp kenn ci Touba diggante Touba ak mbëllëxeeg Tiwaawoon mu di ci dox di sëriñ Alioune Dia moom itam dikk na mi ngi nii toog ak bokk yépp léegi ñu jëkkante waxtaan wi Alaaji Njaay li ma leen programme bi ñu continuer ministre bi bi muy ñëw mi ngi ànd ak doomam Tuuti Njaay di doomi Mbay Njaay ministre d'État ak jigéen ñi ak délégation bu bari ànd naa ñoom dana ci ñëw ci kanam ajartu Ayda Mbóoj ñëw na jiite mouvement boobu gëm boppam lool xam boppam lool waaye waxoon naa ko bëgg dem ci allier ay Ayda Mbóoj bu duggee Touba ay tànkam du laxase bugaan gi dani ñëw na fi Youssou nduur yónni na fi tubaarkalla Alaaji Njaay ak ñu bari tubaar euh, Youssou Ndour yónni na Buubu Ndour rakkam ak Mara tubaarkalla ak doomu suma doom du doomu Alaaji Abdoulaye Ndiaye nekkal ko fi ak bokk yaqar yëpp ñëw nañu fi presse bi it sëriñ bi télévision yëpp a ngi def direct télévision yëpp amul benn bu def ñëpp ñu ngi def direct démb ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci waaye sëñ bi leeral la taxawaayu bugaan dafa la waxoon ni dafay ñëw ci cérémonie bi waaye yaayam woo ko mu dem ndar mun ma na leeral loolu sëriñ bi démb ba léegi seen mi ngi def direct bëccëg bi ak guddi gi ci Aliou la ko tàmbalee woon kon ñu déglu programme bi. ku am logo na ko dindi ndax dindi naa. alxuraan ju am solo boobu nga xam ne ubbee nañ ko jataay bi te xam ngeen ni mbokk yi xam ngeen ni koo xam ne mooy Cheikh Amadou Fadal ñu di ko fàttaliku nga xam ne euh, wax nañ ne ci taarix ñeen fukki kaamil bind na ko yoo xam ne bokk ak ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yi nga xamante ni moom la bindal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon booba bis buñ ko buñ ko tubbee alxuraan kon mel na ni sëti seriñ Touba yi. jërëjëf gis ngeen euh, présentation bi noonu. sunu bay alaaji mbay peex euh, présenté ñi nga xamante ni moom mooy délégation bi waaye délégation gouvernementale bi ñëw noonu tey président yebal fi ki nga xamante ni que mooy sunu xarit sunu soppe ministre bu baax bu gore boobu Serigne Matar Ba moom tamit gis ngeen mu ngi ñëw ànd ak une délégation waaye ñu ngi fii seen tamit l' assemblée nationale di soxna Awa Niang moom tamit di député dëkk Pikine ak euh, délégation bi nga xamante ne que waa PDS euh, moom la ñu fi yónnee te ñoom sëñ Bara Dolly jiite ko. ak délégation bi nga xamante ne que Pape Diop bokk gis-gis ñoom ñoo ko fi yónnee waaye délégation Idriss Seck tamit ñëw na fi euh, tey boo xoolee euh, kenn lesul moo xam ci wàllu politique la moo xam tamit aussi ci li war diine ji tamit ndax événement yu mel nii souvent fépp fay mën a nekk rek euh, da ngay ñëw ndokkeel sa morom gis ngeen Serigne Aliou bu mbalaxee moom tamit mu ngi noonu ñëw tamit ak délégation am waaye gis ngeen njabootu Cheikh del Fadal gi ñëpp ñu ngi fii macha allah di ñaan rek yàlla bàyyi fi Cheikh Abo Baraka te sàmm ko te dooleel ko te yiir ko jërëjëf lislaam mu mu yàgg jiite rakkam yu tedd yi ñu ngi may xamal ne Cheikh Amadou Rafa yi moom tamit mu ngi foofu ñëw na moom tamit ak Cheikh Amadou Badawi moom tamit ñu may xamal ni que wax dëgg yàlla ñëw nañu sa Cheikh Oumy sëñ Mamoor Murtada njabootug sëriñ Fàllu gi góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan yàlla rek ñu yàgg ko teewee at yu bari waaye li ñu bokkal Mbakke ak Mbusoobe ak Aafe ñoom ñëpp a ngi fi tey ñëw gunge si leen dooleel leen jàppal leen ndax dëgg dëgg Sëñ dafay cërub cërub àdduna waaye dafay cërub lislaam kon ñu ngi noonu di lim programme bi Sëñ Alaaji Njaay di ko lim ñu war a jël kaddu waaye seen cheikh moom seen cheikh Abdul Xaadir Mbakke moom mu ngi fi tamit di xalifa seen cheikh Abdul Xaadir Mbakke mu ngi fii moom tamit ñëw gunge si ay rakkam ak i magam ndax diggante sëñ Fallou ak eh, seen jiri defe naa ne génn jëmm la ñu woon kon ñu bàyyi rek eh, délégation bi tey ki nga xam ne moom mooy maire Touba tey képp ku ñëw tey moom ngay dalal sëñ Abdou Lahad Ka moom moo war a ubbi jataay bi bu waxee ba noppi rek eh, soo ko gërëm autorités yi ak les corps gouvernementaux ak corps yi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi ci wàllu police gendarmerie ak sapeur moom tamit waaye góor a ngoom sax comme baas yemale ko ci njabootu sëñ Bamba gépp ñëpp lay liggéeyal kon ñu déglu kon ñu déglu Cheikh Abdou Lahad Ka asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. di jiital ci nuyoo bi njabootu xaadima rasul gi fi toog te bu ñu ci tuddee sëriñ aboo Mbàkke Baraka bu Cheikh Ahmadou Fadal tudd nañ ci ñëpp di teg nuyoo bu sell ci ay loxoom mu teg ko ci njabootu sëriñ Touba gi di ko ndokkeel di ko ko jox mu jox ko Cheikh Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi téwéer waaye di ñaanal suñu sëriñ ki waral ma toog fii di wax te dénk ñu liggéey bi Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké mu yàgg fi téwéer di dalal gan ñi jàmm ci turu conseil municipal bu tuuba ak conseil yi ma àndal te ñu teew fii daanaka conseil municipal bi mën naa ni ñëpp ñëw nañ waaye di dalal délégation bi nga xam ne ñoo jóge ci président de la république ñëw fekk ñu fii te Matar Ba jiite ko ànd ko ak Omar Gueye ministre de la pêche ak directeur yi mu àndal yëpp ak chef service yi fekk fi gouverneur de la région de Diourbel ak préfet de Mbacké su préfet Modou Mbacké Fall ak autorité yi nga xam ne ñi ngi ci département bi yëpp di nuyu sama mbokki taalibe yi fi teew yëpp te ma àndoon ak ñoom liggéey bi ak ñi nga xam ne dañoo bokk nekk ci liggéeyu dëkk bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi muy parti opposition bi délégation yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu gan ñi nga xam ne ambassadeurs yi jóge nañ ci ay gox teewal fi ay réew te ñëw tey ci màggal gi di la xamal ne sëriñ bi bi màggal gi jubee nga boole ñu ak sëriñ Abdou Fata ak lenn ci njaboot gi ñu ànd ak dem ci gouverneur de la région de Diourbel te tenir fa benn de ngir waajal bis bi ci li nga xam ne doon nañ ko ci yittewoo ànd ko ak comité de organisation bi nga xam ne ñoo ñëwoon ci sa ndigal nga joxoon leen ndigal ñu ànd ko ak ñun ak administration bi ngir waajal bis bi ñu ànd tàmbalee ko ci njaareem ci kanam gouverneur de la région ci ndigalal président de la république ñu ànd nañ ko ak ñoom ci lépp loo xam ne yitte la woon joo xam ne bis bi laaj na ko te ñu waroon koo def te yi bànqaas nekk commune bi war koo def yi ci des état bi war koo def ñu bokk ko tënk foofa waxtaane ko ci gouverneur kanam gouverneur de la région gouverneur li nga xam ne mooy li ci waa nekkoon wàllu commune Touba commune bi jël ko en charge li nga xam ne wàllu état la woon gouverneur jël ko en charge ci différent ministères yi mu concerné woon ñu ànd ci lënkoo ci ba di ko topp di ko topp di ko topp ba bëriki démb bi ñu defee évaluation ci kër Serigne Abdou Fattah ñu xamal ne ñu lépp loo xam ne commité de organisation bi laajoon na ko te bis bi tax koo jóg muy lu ñu war a xalaat wala lu ñu war a dox wala lu ñu war a wax wala lu ñu war a def def nañ ko ci barki démb ci altine ji bi ñu toogee ci kër sëñ Abdou Fatah mu desoon suivi bi ñu di ko suivi suivi ànd di ko suivre ak comité organisation bi ba fii ñu toog tey loolu mooy li nga xam ne mooy mission bi ñu ñu joxoon ngir ñu war koo def taxawoo ko bis bi ànd koo commité de d'organisation yi ak taalibe yi ak ñëpp ñi nga xam ak administration bi ba ak si fii loolu rek lañ la doon seereel di la sant di la gërëm di ñaanal yàlla guddal saw fan te wéral say cër di la xamal ne ñi nga ñu booleetoon ànd nañu ñoom nit ñu neex ànd lañ ndax ñu xam li ñuy def lañ te bëgg ko di am ci pasteef di la ñaana rek xanaa nga ñaanal réew mi jàmm ndax réew mi am jàmm te ñaanal ñu ni ko daan ñaane nawet bii ñu jublu ah nga ñaanal ñu yàlla def ko muy nawet bu barkeel teñ muurloo ko tey nawet ak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdoulaye Ka wax nañ ma léegi ci délégation bi muy lim waxoon naa ko même tuwaat ko Cheikh Abdou Mbacké député Assemblée nationale moom sëñ Baara Dolli Cheikh Mbacké moo fi tee moo fi teewal président Abdoulaye Wade ak njabootam di leeral bu baax sëriñ bi njaboot gi yëpp dikk nañu dañuy jëkkante ak waxtu wi. moo tax ñu bëgg mu gaaw sëriñ Modou Boussa xalifa sëriñ sëriñ Boussobé moom itam teew na fi ñu jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir lépp nu mu mel baa mu am ko sëñ fal lu laat Cheikh Abdoul Khadir ñu ñoddil ma ñi toog ci fil yi gis ngeen euh, ginnaaw bi ki nga xamante ne que mooy le premier magistrat de la ville de Touba la Serigne Abdoulaye Ka defee moom i discours waaye maa ngi seen euh, Serigne Cheikh Aliou moom tamit di jëm ju baax moom tamit di l'homme des projets de Touba bokk na ci indi initié aussi loolu nga xamante ni que moom mooy Maamu Rahmati moom mooy dugg si noonu waaye ñu ngi may xamal ni que Serigne Bachirou Abdoul Khadr moom mi nga xam ne moom mooy porte parole yoonu murit moom moo war a jël kaddu ndax euh, yu mel ni saa yu amee moom mooy euh, moom mooy ñëw jot li nga xamante ne que moom mooy baatu baatu xalifa bi. yu mel ni saa bu amee rek moom mooy ñëw joxe li nga xam ne moom mooy yóbbante xalifa bi kon ñu ànd teewal la ki nga xam ne moom mooy Sëriñ Bassirou Abdoul Khadr sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa saxbihi zawi ridwani wa tamkin ixwat alimaani wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh mohamadou muntaxa mbàkke ibnu cheikh mohamadul basir mi nga xam ne tey moo fi jëmmi Serigne Touba yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ci ndigalam lañ fi teewe mu yóbbanti ñu kàddu yu nuyoo ne ñu nañ ko ko tegal ci loxol rakkam moom it ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. gis ngeen euh, sëñ bi moom mooy moom mooy jël kàddu noonu di joxe yóbbante ngeen xam ne moom la ko xalif général des Mourides euh, yóbbante di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal moom itam yàlla sàmm ko rek te dooleel ko mu yàgg jiite ay rakkam ndax dëgg-dëgg yokk na yoon wi waaye maa ngi seen Umar Gueye toog noonu. ànd ak ki nga xamante ne que moom mooy Matar Ba di délégation boo xamante ne que président de la république moom moo leen yebal gis ngeen Serigne Aliou Dia toog nanu moom itamit ci suuf naa rek dañuy maasee teewlu sëñ bi mu ngi noonu di waaj jël moom itamit ay kàddoom maa ngi seen sëñ Mamour Mourtada seen waajur wu tedd nekkoon rek ci ngeen nekk Cheikh Mahamadou Fadil te mooy bëgg sëriñ Touba ak liggéeyal ko ak jeex ci Serigne Touba te yéen itam xam na ne ci loolu rek ci ngeen nekk kon Serigne bi neen mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di fedd lii itam li nga xam ne doxoon na ci diggante seen way jur yu tedd te muy firnde joo xam ne la ci gën a tuuti mooy boo demee tey ci kër Cheikh Mouhamadou Fadil da nga fa fekk Cheikh Mouhamadou Bachir boo demee ci kër Cheikh Mouhamadou Bachir da nga fa fekk Cheikh kon nag loolu firnde la sëkk ci seen diggante maa ngi doon nett li ci poroxaan keroog bi nga xamee ne cheikh Mouhamadou Fadil bàyyi koo na fi di seet si cheikh Mouhamadou Bachir ba mu àggee fekk sëriñ Bachiru ne ci biir di deeyaale ak boromam ka nga xam ne moo nekkoon ci bunt ba tej ko bi cheikh Mouhamadou Fadil accès laajte mu ne ko sëriñ bi dafa fatu day deeyaale boroom mu bokkoo fëgg Cheikh Modou Farid na ko dee doom Serigne Touba kenn du ko fëgg daana ko daa dem dinaa dellu waat ba Cheikh Mamadou Bachir génnee mu leeral ko kon Cheikh Mamadou Farid dikkoon na fi waaye dañ laa fëggul ndax boo da nga doon tëju ko nag kuy tëj doomu Serigne doo tëye sama caabi daan nangu caabi yoon kon waa kër Serigne Touba loolu lañ doxale woon ci seen diggante loolu nga xam ne Serigne Touba ko ñaanoon ci njabootam nag ba àdduna tukki du fi jóge ndax Serigne Touba dindi na ci suñ diggante lépp loo xam ne mooy li yàq diggante ak bokk Serigne Touba dindi na ko ci seen biir kon loolu yàlla yàgg te yàgg ci biir njabootu Serigne Touba gi njabootu Serigne nag bu ñu ko waxee yëmut rek ci ñi nga xam ne ñooy ñu bokk ci moom képp ko yaakaar Serigne Touba rek na nga xam ne yàgg ci biir njaboot gi te loolu danaa ko firndeel ci mujj samay wax kon sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di fàttaliku itam nag. suñu ñaari kilifa yi nga xam ne ginnaaw Cheikh Mamadou Fadil ñoo ko wuutu woon te taxawoon fi taxawaay bu rafet ba bis bi agsi fii tey muy Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Fadilu ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke Fadilu ñoom ñaar seen taxawaay rafet na lool ci biir kër Cheikh Mamadou Fadil moo tax ba àddina tukki itam kenn leen fàtte kon ñu ngi ñaan suñu boom dolli seen leer te taasuñu ci barke seen barke di ñaanal itam suñu kilifa gu baax gi nga xam ne ndëgg ni daaw teewoon nañ fii ci ndigalam muy Cheikh Sidi Mokhtar ñuy ñaan moom suñu borom dolli ay leeram tataasuñ ci barkeem di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew ci ndigalul président de la république Macky Sall muy ministre Makhtar Ba ak mboolem délégation bi mu àndal xam naa kii wax ci turu sëriñ bi di Cheikh Ahmadou Rafahi dana ko leeral ni ko si sëriñ Abdou Fatah santaane li nga xam ne jëfandu ko ci màggal gi te sëriñ Abdoul Ahad ka jaar na ci léegi kon ñi ngi ko yóbbantam nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci bis yi ndax lépp lu ci def rek moom lu ko defal kon mi ngi koy ñaanal suñu borom dimbali ko kàttanal ko ba mbooleem mission bi nga xam ne am na ko ci réew mi suñu borom mottali ko nu kawe jortam di tàbbi nag ci ki nga xam ne mooy borom bis bi di Cheikh Mouhamadou Fadil xam naa ne sëriñ si sëriñ Mamour dana ñëw ci laylatul isra wal mi'raj kon fi ñu tënk suñuy wax rek mooy ci jëmam ju tedd ja muy Cheikh Mahamadou Fadil ndax moom dafa doon jëmm joo xam ne léppam may sa fa jeexal ci bëgg sëriñ Tuubaa ak liggéeyal ko ba mu jugee rek amul benn bëgg-bëgg lu weesu bëgg sëriñ Tuubaa ak liggéeyal ko waxtu nekk nag mu daan bind ay lettre sëriñ bi daan ko jaarale ci soxna bu Bousso di sàkku ci sëriñ bi ndigal lu ko sëriñ Touba jox ba sëriñ Touba santaane liggéey jumaa ji yónnee ci moom ndaw ne ko boo demee nee ko ndigal la ma daan laaj mooy jumaa ji nee ko na feex bu ko ci kenn man ku ñëw na ko ci fekk dem na ko ci bàyyi yàlla def na ci kattanam nag ak pëstéefam xeer wa njëkk feeñ ci jumaa ji moo ko wone xeer wañ mujj teg ci liggéey jumaa ji moo ko teg kon Serigne Touba nangu na ab liggéey bind na Serigne Touba ab kaamil itam Serigne Touba ubbi kaamil ba xamal ko ne ko wa barran bi waalidayhi walam yakun jabbaaran asiyan kon moom ku bari ay tawfeex la ci sëriñ Touba Serigne Abdou Khadir Mbacke daana wax ne Cheikh Mamadou Farid la suñ borom defal na ko sañ-sañ ci biir yoon wi sañ-sañ nag xam ngeen ne mooy lu amul fenn fu mu yem sañ na cee def sañ na cee dindi Cheikh Abdou ko seeral muy jëmm joo xam ne itam ni ma ko waxee léppam Sëriñ Tuubaa daat na ay béyt wax ne chafku dumuuci li xubbil xadimi fardan arahu sotti samay ronxañ ngir bëgg Sëriñ Tuubaa farata laa ko def waxaati ne biatu bunuwatiya bil iraada lakum li kay bi xarqi aada min baadi ma staraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni fa taqbaluha yaa malaasu karama la zitumu benn baraaya alama mooy jaay gi mu jur jaayoon ak njuréeram jënd ko ak taalibe bi wëlbatiku wax ne bëggumaa doon doom ju bëgg a doonu baayam bëggumaa doon taalibe bu bëggu ceex kon lépp lu may def Serigne Touba rek la Serigne Touba defoon ci rasulullahi rek def daani ila mati bi hubbu saati yi moo tax itam nag Serigne Touba fay na ko ndax ba fii mu ne saa suñ tuddee Cheikh Mamadou Fadil day mel ne mi ngi ci kaw suuf képp koo xam ne tiit nga woo ko ci aajo na ko ko suñu borom defaloon ci bi muy dund nga xam ne dañuy wax ne ku ma sa dugg biir këram jaaxle boo génnee da ngay ree képp ku fu ma sa indaal yitte boo génnee yitte ji na saafara tey la ko ko suñu borom gaa defal ba tey képp ku jaaxle te am posté boo doogoo ci moom rek daal di fekk ci loola loolu nag lu ko Sëriñ Tuubaa defal la la ma fi nettali woon daaw danaa ko fàttali bi mu demee ba toll ci ak mujjam dañ ko wax ne ko sëriñ bi dañ ko wax ne ko sëriñ bi yow de dafa mel ne àgg nga ci mag te sa njaboot gi fàgguloo leen dara dañoo bëggoon nag nga wane leen Cheikh Mamadou Fadil ne leen naa leen bàyyi ak sëriñ ndax cere jàmbur du ko woon sama doom bu ëllëgee mu ca jooy moo tax bi mu fi bàyyi ko itam li mu fi bàyyi matul sax téeméeri junni tey jii nag Serigne tubaa defal na njabootam gi loo xam ne ba àdduna tukki du jeex kon lebal Serigne Touba rek mooy lu am solo muy jëmm joo xam ne itam sëriñ tubaa dafa wane ci moom xar baax ndax la ciy firnde mooy màggalu Touba gi ku ne xam na ne sëriñ tubaa da koo santaane woon kenn ku ne di ko defee bi kër bi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke accès wéyal loolu bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke accès woote ko ci biir waaye tey jii ku ñëw ci màggalu Kazu Rajab da nga xam ne Serigne Touba fayaat na Cheikh Mamadou Fadim kon nag ñi ngi dogg ci dara jàmm nawet bii yàlla na ci suñu bon def barke ndax kat Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadim dafa ma si yóbbante ci moom loolu ñëpp dégg nañ ko ndax booba dafa géej a taw ginnaaw bi Serigne Touba xamal ko ne naa la booleeg malaayika mi yor taw bi moo tax Cheikh Mamadou Fadil saa su ma saan soxla taw bi rek. tawba de daal di agsi kon loolu la ko sëriñ Touba defaloon Serigne Touba jëfandikoo ci moom xar baax yu baree bare kon bis bi képp koo xam ne ñëw nga fi rek boo fi amee ak dogu ak pësteef na la wóone loola suñ borom daal la ko defal kon nag li ñu war mooy góor góorlu te sax ci ndigalu Serigne Touba bàyyi tere bi kon nag lii nga xam ne sëriñ bi fàttali na ko bu yàggul Cheikh Mouhamadou Mountakha muy ci nawet bi wax na ñëpp nañ tàmbuli liggéey bi te ruuji loolu na ci ñëpp góorlu te xam ne sëriñ tuuba dafa bokk ci aw yoonam li mu wuuteeg mboolem yoon yi ci des mooy liggéey da ko def ci biir jaamu yàlla kon Serigne bi nee na mi ngi sont soññ ñëpp ci liggéey na ko kilifa yu jëkkee daa santaane te Cheikh Mahamadou Fadi daana ko fàttali naan nañ nañ bàyyi leen sow bi ak waa sow te dem ci penku bi te liggéey bu ñu ko defee rek suñu borom ñu ci dimbale ñu ci defar tawfeex kon sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññ ñëpp ñëpp gën a góorgóorluwaat te xam ne sëriñ Touba ba muy santaane liggéey jumaa ji dafa waxoon ne maa ngi leen di ndigal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa yóbbaale mooy lépp lu ngeen di soxlaate ci lu ngeen mënta ñàkke lu mel ne néegub yàlla bi na ngeen ci góor góorgóor seen kem kattan ba fa ngeen yem te fu ngeen ca mënta àgg ngeen laxasaayu dem wuti ko ci anam gu lew te fu ca seen kàttan yam ngeen toog xaar fa sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran daane te rikki nag maa ngi leen di wattandikuloo wattandikuloo lépp ndimbal loo xam bu leen fajalee seen itte it leen xañ seen jom ak seen ngor ndax yaara ngi yoo ne képp ku am ku war ngaa góorgóorlu ba doo ko ñàkk képp koo xam ne amoo ko it war ngaa góorgóorlu ba am ko daane bokk na ci li koy maye nag ci la ci jiitu mooy fexe ba nangoo liggéey ba lépp loo xam ne mënu koo ñàkk ci sa yittee bopp nga di ko fajal sa bopp bokk na ci li jiit ca la koy xañe it mooy ñàkk liggéey ak jël sa yitte yëpp wéer ko ci loxoy doomu aadama yi kon loolu nañ xam ne ndigalu Serigne Touba te xam ne ndigalu Serigne Touba lépp lu mu santaane lu ne luy am lay doon kon ne ñëpp góorgóorlu te xam ne àdduna suñ borom da ko bindee faw doomu aadama muy ami nattu léeg mu neex léeg-léeg mu naqaree waaye su saa su naqaree nag na sa xel dem ca ëllëg ndax suñu kilifa gu baax ka Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne saa soo amee yitte te bëgg te bëgg faju teew mu teew nee na bu yàlla dimbalewul lool rek da nga ñàkk sa ngor ndax da nga jëfal ko xañ baa nga wax ko kon loolu nañ ci góorgóorlu te xam ne am xasibtum an tadxulul jannata wala ma yaatikum mathalu lasina xalaw min qablikum mashathumul bashaau waddaraau wa zulzilu xata yaqulu rasul wallazina amanu mahahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib nañ xam ne kat bala ñoo tàbbi àjjana faw suñ borom dana ñattu ba xam ne liñ doon wax dëgg la am déet wala nabluwannakum xata naalama almujahidina minkum wasabirin wa nabluwa axbaarakum kon la sëriñ Abdul Ahad Mbàkke waxoon rek mooy murit fu mu nekk na yamale wéet fa ak wéetali ko fa te xam ne ndigalu Sëriñ Tuubaa fa bàyyi daana wax itam ne murit na góor góorlu ba fexe ba mel ne ëkk te bañ a mel na xobu garab ndax xoru xobu garab kat ngelaw lu jug dana ko yóbbaale waaye ngelaw la ko dugal ci pax ma du ko fa génn waat kon nañ góor bu baax a baax ci gën a farlu ci ndenkaane Sëriñ Tuubaa te xam ne Sëriñ Tuubaa lépp lu mat a fàggu ci àdduna ak alaaxira defal nañu ko li ci rek mooy delloo ko njukkal delloo ko njukkal nag mooy sax ci lim digle te ba te sax ci te tey wattandu ko lim tere te xam ne kat yoonam bii noppi na ci ndax waxoon na sëriñ am satu sëriñ am satu jaxat ne ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko sama yoon wii sama dëkk bii sama xasida yi sama dëkk bii doone lu ci kenn dara lépp maa ko téyel sama bopp kon na xam ginnaaw bu ñu xamee ne Serigne Touba yii doon a liw ci kenn dara nañ xam ne kon lépp moo ko yor boppam te Serigne Touba lépp lu ne ci loxoom lam ci bëgg rek a ci am te waxoon na ne ca njaarim la ma sunu borom wane li naar a xew sama ginnaaw ba lépp lu bëgg am ci sama lépp lu bëgg ci sama rek moo ci am bilaa afatin wala kadarin du ngeen du ngeen ko dégg mukk ci mbiru Serigne Touba yàlla nañu suñu borom dimbale may ñu ak dégg ak topp te waxoon na ma Cheikh Mahamadou Fadil ci làmmiñu Serigne Souhaïbou bu laa ko déggee neen dama bàyyi ko fii dem seeti Cheikh Mahamadou Bachir ne ko dama bëgg nga fàttali ma tuuti ci ndenkaane Serigne Touba loo xam ne dana ma mën a jariñ Serigne Souhaïbou bu ne ko mastama fekkali ci néeg ci njariñ muy wax ak Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil may dugg si fekk waxtaanu sëriñ bi di jeex mu jël ñaari loxo bi teg ko ci seen bopp yu teddee ne leen jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla bu ngeen jaamu jur yàlla de lii ngeen fii gis muy nuuru dara def ko ci ndunku runku pal muy demam moom sax sëfuma kon nañ xam ne Sëriñ Tuubaa mbiram defu ko rek ci ku bokk ci moom waxoon na ne bu ngeen dégg mukk li may wax ci sama xasida yi ci sa dami damiru mutakallim yi may wax képp koo xam ne bokk nga ci man te jub rek nanga xam ne tàbbi nga ci biir kon nag nañ sant yàlla bu baax bi mu ñu booleeg Sëriñ te xam ne loolu kenn mënu koo fàggul sa bopp te waxoon na ne def naa ci sama mbooti mbooti xaside yi dox na tuuti ci mujj jamono sama mbooti xaside yi ñooy jóg di yëddu kuréel yi gépp képp gépp kuréel gu njëddu fekk nga nekk ci suñ biir ak lu koy baaxal ñu faj seen aajo ngeen nekk ci cant ak sant yàlla te du ngeen xam lu ko indi waaye gépp kuréel gu njëddu xool ko ñu nekk ci lu yàq sama mbir ñu rajaleen de féewale seeni bopp ñu nekk ci fitna te duñ xam leen ca tàbbil ba sawra wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mamadou Bachir xol yëpp sedd na Mbakke. gis ngeen Cheikh Mamadou Bachir discours bu am solo boobu mu def comme ni mu ko daan defee ci jataay yu mel nii rek mooy bu ñëwee rek euh, dafay fàttali li nga xamante ne moom mooy njàngalay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale ci mbindum gis ngeen waaye fàttali relation yi nga xamante ne que Cheikh Mouhamadou Fadel amoon na ko ak njabootu Cheikhul Khadim gi waaye pas-pas akub taalibe gi Cheikh Mouhamadou Fadel amoon ci diggante bàyyi bu tedd ba Cheikhul Khadim ci ni mu def ba jaayoon ak njëriñam jëndee ko li nga xam moom mooy taalibe Cheikh Mamadou Bachir dañ koy ñaan yàlla sàmm ko yàlla dimbali ko yàlla jàppale ko ci barke Cheikhul Khadim ndax tiitaru yoon wi la sagu yoon wi saa yu waxtaanee ci jotaay yu mel ni rek murid yëpp seen xel dellu si kon ñu jox rek kenn mooy Serigne Mamour Mbacke Ibn Cheikh Mamadou Fadel moom tamit mu jël kaddu. Euh, jàkkaaru li nga xam ne euh, moom mooy taalibe yi leen jot li ci lenn loo xamante ne que bokk na ci njàngaleem Cheikhul Khadim ma Mamor moom mooy ñëw noonu sëriñ ma mu toog sëriñ Mamor moom Cheikh Mouhamadul Varel waaye ñu ngi may xamal ni que Cheikh Amadou Rafa yi moom tamit war na ci yëkkati ay kaddu fàttali li nga xamante ne que moom mooy njàngalay suñu borom bi azza wa jalla kon ma Mamor moom mooy toog noonu mooy toog noonu ginnaaw bi Cheikh Mouhamadul Bachir daanalee kàddoom ndax ku ne xam ne dañuy xaw a njëkkante li moom mooy waxtu yi ko ñu dellu teewlu sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Abdoul Farid alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi thawi ridwani wa tamkin أصحاب السماحة المشايخ المحترمين آل الشيخ الخديم أصحاب الفضيلة ممثلي البيوت الدينية أصحاب السيادة ضيوفنا الكرام أصحاب الإرادة qaadatu tariqa almuridiya wa atbauha fa yus'aduni an atanaawala haadihi alkalima bismi llijna almunazima li dikra milaadi cheikh Mouhamadin alfaadil wa ala rasihim alcheikh abdul fattah wa cheikh ahmad badawi hadihi alkalima allati nabda'uha بالتضرع إلى الله تعالى داعيا إياه أن يسبل وابل الرحمة والرضوان صاحب الإنجازات العظيمة wa tijaaha ali cheikh al xadim bi si sëriñ Mamor moom mooy def discours boobu di ko def ci lughul arabia xam naa bu noppee dinañ ko transmettre ci maanaam ci langue wolof moom itamit di ko xamante ne que ku yàlla may xam mu maîtriser li nga xamante ne que moom mooy langue arabe yëpp tamit ku yàlla may xam la ci wàllu jàngale sëriñ Mamor Fadilu gis ngeen sëriñ Fàllu noonu la yare njabootam gépp yar leen ci xam-xam yar leen ci diine yar leen ci ak taalibe waaye lii lépp rek bu mënee am tey ba njaboot gi doon benn nu ñu mën a def rek danañu ñaanal Cheikh Abdoul Mountakha ndax Cheikh Mountakha day kilifa gu lewet Cheikh Mountakha day kilifa gu laabir waaye Cheikh Mountakha day kilifa gu yàttu dënn kilifa gu mën a muñ jaara jële woon ko nag ci magam ju baax Cheikh Abdoul Amin bu ne bés musta xew ci biir kër Cheikhul Khadim te jamono bi muy nekk xalifab Cheikhul Khadim daan taal otoom ñëw ba ci yéen ndokkal leen man ma gis naa kër Sëñ Mbàkke Madina ba tàyyi ci màggal gi nga xamante ne moo doon màggalu Sëñ Mbàkke Madina daal ñëw bu ziyaar Sëñ Cheikh Mbàkke di Sëñ Cheikh Bombale jaar ma tabaqa min al umniyati thalath allati xalafaha allati xalafaha cheikhuna Abdul Khadim qaddasa allahu sirra wa nahnu aali Cheikh Madi al Fadil بقيادة الشيخ أبي بركة حفظه الله نحن مع سماحته مع سماحة الشيخ المنتقى في هذا المشروع الرباني العملاق قلبا وقالبا داعين الله سبحانه وتعالى أن يتمه على يديه في أسرع وقت وعلى أحسن وجه ونقدر كذلك laftatahu al ictibaariya allati jassadaha bima qaama bihi fi xurati rajab hada li cheikh abi baraka fi ziyaaratin axawiya tashrifiya dilaalaatuha akbaru min an tuxsa fa jasaahu llahu an alislaami wal umma xayra aljasa hada wa inna kasa rajabin التي نختتم أعمال الاحتفال بها في هذه الجلسة المباركة ليلة عظيمة باعتبارها ظرفا لأكبر حدث إيماني التقى فيه ولأول مرة العالم العلوي والسفلي بصورة مباشرة سجلها القرآن الكريم في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى باركنا حوله يريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهناك تم التواصل المباشر الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وتمخضت عنها أي عن هذه الليلة فرضية الصلوات الخمس التي هي عماد الدين وأعظم نشاط روحي يربط العبد بخالقه في اتصال متواصل فهنيئا للمسلمين بهذه المناسبة العظيمة وهنيئا كذلك للمريدين بهذه الليلة المباركة باعتبارها إلى جانب ما تقدم ظرفا لمظهر آخر من مظاهر النعمة الإلهية wa huwa cheikh Muhammadin al-Fadil allazi kaana daa'iyatu salaamin wa wi'aam waqad tamma ala yadayhi jaami'in fi haadha al-qutb wala garwa wala garwa fi dhalik fa huwa allazi wulida fi daari salaam laylata al-israa'i wal-mi'raaj وقد اخترنا العلم ومكانته في الإسلام محورا لاحتفالات هذه السنة تماشيا maa tawjihat almaymuna lil xalifa cheikh mohamad al muntaqa wa balwaratan lima li cheikh mohamad al fadil fi hasa al majal min dawrin ijabiyin wa mawqifin mardi wa izhaaran lima lil ilmi naafici min makaanatin wa miisa fi lislaami aamatan wa fi lmuridiya xaasa xaysu daxa ilayhi alcheikhu alxadim wa hadda alayhi alatbaa qaa'ilan talabuhu ay alilm talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa kulli muslima la an qaal wa baadu faalam anna xayra ma shtaal fatan bihi ilmun wa diinullahi jal atlubu minka alilma qabla alamali faltaqini aljahla wa qud li amali wa man tajarrada li taa'ati aljalil qabla taallumin فغمر لا نبيل يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل والعلم أفضل أخي من العمل وأسه ففاز من له حصل لكنما ثمره كالنفع في عمل به فكن سالجمع وحيث يعتبر العلم أساسا لكل إصلاح ناجح أصبح ضرورة دينية wa xaajatan insaaniyatan wa matlaban it fi haasa alwaqt wa ahra fi haasa alwaqt alladi taqallasa fihi dawru di dawru diin fanxallat alaxlaaq wa uhriqat aldima wa axtulisat alamwaal wa axtuliyat ala almuqaddasaat walxurumaat alxaasa walaama alamr alladi yadcu ila darurati tafciili دور التربية والتعليم على المنهج الخديمي الأصيل الذي يتلخص في التحلية بعد التخلية حيث يسير سلوك العبد تجسيدا حقيقيا للدين الحنيف بمبادئه وتعاليمه وآدابه بذلك فقط يضمن المرء حياة سعيدة في الدنيا والآخرة وذلك ما يدعو إليه cheikhuna cheikh abou mbakke wa yaxutu al atbaa alayhi daaxiyan al jamii ila tafauli ijabiyan maa tawjihat alxadimiya almabthuusa fi kitaabatihi wa minha kunu maan fi lilmi raaxibina liwajhi man bihi yuqimu diina alilmu walamalu jawharaani li xayrayi daarayni yajlubaani rajaau jannatin bila taaati بسنة الماحي غرور ياتي وأتقدم في نهاية هذه الكلمة بتشكرات جزيلة إلى كل الذين وقفوا معنا وشاطرونا الأعباء في هذه المهمة من الإخوة والأصدقاء والأتباع ومن الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والوسائل الإعلامية وأنوه خاصة بجهود أعداء اللجنة المنظمة وخاصة اللجنة الثقافية ودائرة الأحفاد الذين كانوا معنا في حمل هذه الأمانة بكل صدق وإخلاص داعيا للجميع بالتوفيق والنصر المبين وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jërëjëf Serigne Mamor xol yi sedd na bu baax mbakke xel yi dal na sa mag ju baax ji sëriñ Aboo ak Cheikh Abdoul Fattah toog ak njaboot gi nga def lii xol yépp sedd na sëñ bi leeral la sëñ Fallou Mbakke mum sëriñ Abdoul Wudoot di ko yàlla baaxal mu bokk ci biir kër gi ñëw na soxna maam say Mbakke moom sëriñ son yi bu moom itam mi ngi fii waaye bi may lim délégation yi Maxtaar Surang dafa bokk ci waa kër Serigne Touba yore parti boppam waaye ku ne xam ne maamam góor gi ma sorong ak sëriñ Touba kon Maxtaar Sorong ñëw na àndanteeg délégation bu am solo sëñ Cheikh Aliou Mbacké moom sëñ Aliou moom itam borom ndoxu Touba bi ñëw na sëñ Abdourahmane Niang xalifa sëñ Modou Khari Niang moom itam dikk na léegi Cheikh Abdoulahat Diakhaté wax nga dëgg de Cheikh Abdoulaye Jaxate mooy chef du village Touba waaye kër sëñ Fallou nag day kër maamam ndeyam busa la sant baayam Jaxate moo tax mu dëkk Touba waaye li ñu ko jox yàqu ko sàmm na ko moog Cheikh Abdoulaye Ka mi doon wax léegi kon ana Alaaji Njaay Cheikh Ndindi ñu may Alaaji Njaay Cheikh Ndindi mu ñëw nañ ko may yoon Fallou Dieye sëñ Fallou Mbakkeem sëñ Baara Khureyja waaye sëriñ bi Cheikh Abo sa jàmbaar yi Alaaji Diop ca Côte d'Ivoire ak Alaaji Guèye Dieng mi nga xam ni Alaaji Guèye Dieng yow lay waaje yow lay wallee waaye fédération Dakar bii Alaaji Modou Thian Alaaji Ndiame Diop Alaaji Modou Mbaye ak Moustapha Diagne la leen sëñ Modou Moustapha Fallou waxoon ca fédération sëñ Fallou Ndakaaru loolu suuxat nañ ko ak Modou Ngom Tibaar ñoom ñëpp indi nañ ko bismillah alaaji njaay cheikh ndindi bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi fi teew ak yi dégg sunu kàddu fu ñu mën di nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul sunu sëriñ sunu jawriñ a cheikh abdul fatah mi nga xam ne moom la Cheikh Abul Baraka di kilifaam di sëriñam dénkoon liggéey bi di yëngu yi mu àndoon ko ak rakkam doon dox ci ron kilifteefuk jëwriñam magam Cheikh Mamadul Bachir kàddu yi kàddu yi ndigal la kon ginnaaw bi nga xamee ne ñi ngi njëkk dañuy jëkkante ak waxtu wi lu man ngir tënk rafetlu kàddu yi fi jaar yépp ci ndigal yeesalaat rek kàddu yi fi jaar ci lañuy doore mooy fàttaliku sunu jàmbaar ja sunu sang ba sunu sëriñ ba sëriñ Siidil Moxtaar Mbakke mi nga xam ne moo fi nekkoon waxtu wi daaw di Cheikhul Xadim mate ko sëkk ak taxawaayam yu rafet yi ni ko sëriñ Maamoor waxe léegi liggéeyam yu am solo ya liggéeyal ko lislaam bépp ca kenn du ko fàtte marke jamonoom lool ci benn la jullit ñi benn la seeni kàddu ca loolu di ndigalul yàlla nekkoon ku matoon ci ay jikko ci ay melokaan ci lépp ci wommat yoon wi ci qualité yu am solo kon moom lañuy ñuy fàttaliku bu baax a baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yokku leeram Abul Baraka ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp di yeesal nag seenu njébbal ci sëriñ Muntaqa Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Xadim di yeesal seenu jaayante dina kër gi moom ay taalibe lañ ca moom lañ fas yéene doon ba faw mooy lan mooy fas yéene di dàkk ndigalu sëriñ Touba ni ko Cheikh Mamadul Bachir um Sëriñ Abdul Xaadir waxe léegi sëriñ lu bëggul woon lenn lu dul nekk taalibe sëriñ Touba kon loolu ñoom it njabootu sëriñ Fallilu gi foofa lañ fa yéene nekk di ko seedeel ñëpp ci seenu njëbal ak seenu wammatu ci doon seen kilifa gii di sëriñ Muntaxa lu mu bëgg moom lañ bëgg lépp lu mu bëggul fasuñ yéene kenn seen leen ci ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi sant mboolem mbokk yi ñi fi ñëw ñëpp jóge ci tarixa yu wuute ak délégation yi yëpp fu ñu mën di jóge mënuñoo lim yëpp waaye ñi fi ñëw yàlla moo tax ñu ñëw fi ak jokk ak bokk la yàlla dige woon ci jokk ak bokk ak dundal ko yàlla ni ci yàlla fay lu kawe seen jot mu ngi ci sant ñëpp nag bàyyiwuñu kenn nee na waaye di sant nag bokki boppam muy rakki boppam yi nga xam ne mooy Cheikh Mahmadul Bachir Cheikh Abdoul Fattah Cheikh Mahmadul Murtada ak mboolem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom bis bii nga xam ne ñoo ko bokk waaye Cheikh Ahmadul Badawi mi nga xam ne it moom li jiitaloon ci wàllu liggéey bi ak Cheikh Ahmadul Fadali ak daayira turandoo yi mboolem ku ci doon yëngu rek sëriñ bi nee na gërëm na la sant na la bu baax ndax li nga doon def day mel ne moom moo waroon a laxasaa def la ko boppam kon lu ci waaye def yëg na ko bu baax a baax nee na ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy fàttaliku fàttaliku gat xëy na dañuy jaale jaale mbokk yi nga xam ne faatu nañ fi rawatina tuut tànk yi rawatina tuut tànk yi tudd sëriñ Falilu ca ku ne xam na ne daal yóbbuwu leen lu may lu kenn xamul lu mu doon loo xam ne doy na waar sëriñ Fallu Ba sëriñ Fallu Jóob ak mboolem tuut tànk yi nga xam ne xew-xew yooyu nga xam ne gëm njabar ñàkk gëm yàlla ñàkk wóolu yàlla moo ci yóbbu ay nit ba ñu àgg nag ci dayo bu doy waar njabar dafa nekk loo xam ne bu ko nit ki gëmee day mujj day fàtte yàlla borom subhanahu wa taala ma ko yoroon ci biiru bu yaayam ca du de kenn fekk ko fa ak dara gàddul ko lépp mu bàyyi ñàkk bàyyi xel kooko moo tax sëriñ bi nee na kon mi ngi métti lool xew-xew yooyu xew ci xale yi ak fu ñu mënti xewee ak ku mën a doon dafa tudd nag ñaari fàllu yi ndax mënut a ñàkk di jaale sëriñ fàllu sàll ma nga xam ne moom lañ rayoon ca Mauritanie di xam ne nag loolu mi ngi ciy wax nit ñi ne nañu xam ne lépp luñ koy wute jaru ko lépp luñ koy wute jaru ko bu dee nguur jaru ko bu dee alal jëru ko bu dee daraja jëru ko ndax mënoo cee def menn pexe ba jot ci lu yàlla bindul ci woon ci yow kon nag ñaawal ci sëg dund yàq ci sa bopp yowmal xiyaamatul akbar nga dem ci kër goo xam ne dara jëru ko man sa cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ne képp kum doon war naa bàyyi xel ci moytu jëfin yu ñaaw yooyu lu cay dugg dara waru ko nag lu may gëm njabar mooy jeexit ju rëy ji ab jullit day gëm yàlla waaye du gëm njabar day jël boppam wéer ko ci yàlla ne ko cheikhul xadim radiallahu anhu waxoon ne yoon lastu aqaafu durra xalqin baadama fawattu amriya ila rabbi sama boo wéeree sa bopp yàlla suñu borom dootu ragal lenn looy wut looy jañ ci yàlla rek nga koy jañee addurru wannafau min arrahmani laysa min albidaani wassudaani lor ak njariñ ci kenn rek la man a jógee mu ci yàlla mënut a jógee ci nit ku weex mënut a jógee ci nit ku ñuul kon sëriñ bi nee na mi ngi moytuloo nit ñi phénomène boobu melokaan yu ñaaw yooyu ci saa boo demee yaakaar na jeex na ci rek mu mel na day gën a féttéerlu loolu nag bokk na ci li koy jeexal mooy ku ko def ba ñu fir am firnde muy lu fés ba ñu teg la loxo nga wuute ak ku ko deful waaye bu dee nag saa boo xamee ne boobaay it buñ geesoo génnaat gis la ah boobaa nag day tax mel encouragé yu mel noonu nañu bàyyi xel ne bakkan dafa foor yàlla ëpp nit ñi ñëpp yërmaane moo gën a bëgg jaam ñëpp ndax moo leen sàkk waaye moo dem bay wax ne ku rey bakkan ca tay dañoo war a rey sa bakkan kon yàlla moomu wax loolu xam na fi bakkan toll kon nañ boytu baax a baax ci lépp loo xam ne mooy xeetu jël bakkan ginnaaw loolu ñu ngi jaale sëriñ si fi jógee yëpp rawat na sëriñ Abdoul Aziz Signor mboolem kilifa yi fi jóge ñëpp di fàttaliku tomb bi ci tegee di fàttaliku fàttaliku ndaw ci taxawaayu Cheikh Mamadou Fadil ci alquranul karim ak xam-xam sëriñ Falilou sëriñ Bachirou Mbacke Abdoul Khadir wax na ko léegi dundam gépp njariñ la woon loo xam ne weesuwul woon mu nekk luy am jeexeet bu fi jógee mu liggéey ci alquranul karim liggéey bu rëy rëy bu ràññ ko day wax ne booy wax injaasaat sëriñ Falilou buñ la laajee man ngay wax jumaa ji wax la neen wax la neen mu yu fees waaye ab loxo nga bind ci lu mat ñeent fukki kaamil injaas mënu ko gën a rëy réalisation mënu koo gën a rëy ku xam bind na mu demee xam la ca wutum daa xam la ca sot xalima képp maanaam mbirum aar la ak boo tiimee mbindum sëriñ Falilu la ca nekk ci wàllu art artiste ci dessin ya ci la muy joxe mbind ma yitte ak xàq dangay xam ne kii kon yitteem jëpp téere bi la woon bëgg gi ko bëggoon na ko sëriñ Tuubaa bëgg woon la ko bëgg ba tax na képp ku ñëw ci moom sa wàccuwaay mi ngi aju ci téere bi njaboot gi képp koo xam ne mokkoon na ci alxuraan mu war lu la yóbbu màkk loolu dara mënu koo gën a rëy taxawu na ci taxawaay yu rafet yu yéeme yoo xam ne bu ñu ci doon wax kon du fi duñ fi jógee wallu xam-xam naka noonu wàllu xam-xam ñaar yëpp da caa jaar nam ca war a jaare ba géeju ca taxawu ca ay mbooloo yu dul jeex lépp lu tax xam-xam dund mu def ko saabo li xëy rek laa nas ko yi sëñ bi doon jàng léegi boo koy déglu da ngay xam ne jàngkat maanaam boo tegee sëñ Fallu wilaaya ga xam-xam baag doomu sëriñ Tuubaa ja jël jël jël xam-xamu kese bi rek da ngay xam ne kii jàngkat dëgg la ku sonnoon ci am njàngam la nee na loolu nag sëriñ bi nee na mi koy dénk njaboot yëpp ñu góorgóorlu yaraat njaboot gi orienté leen ci njàng mi te njàng mi nag la ca gën muy la sëriñ Tuubaa waxoon fastaxilu bil hifzi wa wa tilaawa wajtanibu sa shaqawa ku yor sa doom di ko jàngal la cay jiit na nekk njàngum alquran diine kenn du ko caaxaane kenn du ko cof du ceegi ne bu la neexee jàng bu la neexee bàyyi déedéet nañu bàyyi xel ne kon njàngum diine nañ ci farataal ci njaboot gi ne ko Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu farataale woon ci ak njabootam te ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ca fonk jàngukaay ya ca fonk jàngukaay ya ñuy jànge loolu ya ñuy jànge alquran nañ leen fonk nañ leen yëkkati nañ leen warmaal nañ leen jàppale nañ leen dimbale ba ñu taxaw ndax li fi am fii ñu fi nekk Sénégal li fi nekk daara moo ko fi def kon daara moom nañu ko jox yitte nañu ko jox xàq nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te bañ jël benn wet xoole ko daara mooy dongo yi dañuy yalwaan dañuy tumuranke dañ leen di dóor mel ni image boobu dong la daara am daara moo génne sëriñ Falilu moo génne sëriñ Abdul Ahad moo génne sëriñ Abdul Xaadir moo génne moo génne moo génne kon mbokk yi la produire loola kenn du jël genn wet mu di ko saboté guddi ak bëccëg nan dañuy exploité xale yi dëgg la kenn bëggul kenn bëggul xale yu yalwaan guddi ak bëccëg kenn du ko encouragé sëriñ bi encouragé wul loolu benn yoon waaye nag ñu bañ a jàpp ne rek xale yi daara yi exploité xale yi lañ fi nekk ni déggee ci média bi loolu mat naa moytu bu baax ndax damay wax ne exploité xale ci genn wet ñu bañ koo xoolal daara képp am na xale yu ndaw yooyu ñu naan kenn wuru leen a liggéeyloo am juróom-ñeenti at jëm fukk jëm fukk mësooraguñ bu ñu leen teree ne daara ya dañ leen dañ leen nangam ba tax ñu leen fitnaal da ngay geesu ñu leen tegal ci ay podium ñuy fecci di way ñuy def ci ñoom ay concours di ko def ay sponsor yu dul jeex di ko réglé xaalis bu jeex loolu exploité xale la kon nag anam gee nañ koy moytoo nañ moytu anam yëpp nañ xam ne xale dañ ko war a jàngal yar ko kenn wuru ko ñàkkaloo kersa kenn ko def leen lu loon ginnaaw bu loolu jàllee ginnaaw bu loolu jàllee sëriñ bi nee na mi ngi dénk mbokki politiciens yi bu baax a baax réew mi bari na coow lool ñu xam ni ay minorité lañ ci réew yi politiciens yi nañ xam ne askan yi moo leen ëpp askan wi moo leen ëpp baat buñ boolee parti yëpp ak responsable politique yëpp bu leen boole askan wee leen ëpp fuuf kon nañu bàyyi xel ne minorité lañ ci réew mi politiciens ñett rekk moo ci am ci yor nguur ñam nguur yor ko fasut yéeneen pexe yu mën a def ba du ñàkk nguur ga moom lay wax guddeeg bëccëg ki ñemoon nguur ñàkk ko guddeeg bëccëg ay pexe mooy nu muy def ba jotaat yi ki ñemagut nan lay def bay ba ñam ñett ñooñu rek ñoo fi nekk yéen ñett ñooñu ñëpp na sëriñ bi mi ngi leen dénk ngeen rafetal wutin wi ca xam ne kenn ci yéen munta fexe munta gudd ay loxo munta gudd ay pexe munta njabar munta am doole munta bari wax munta ñaaw ay kàddu ba jot ci lu yàlla bindut ci moom qul allahuma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka man mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tusil wa tudillu man tasha bi yadika alxayr innaka ala kulli shay'in qadir gëm leen loolu sëriñ bi nee na na ngeen rafetal wutin bi bàyyi leen xastante bi seen biir bàyyi leen yàqante der bi seen biir ndax ay référence ngeen ku nekk ci yéen mbooloo la leen déglu kon lu ngeen di wax na ngeen koy seet ba mu nekk dëgg ngeen di ko rafetal lu ngeen man di wut la yàlla tudd ci yéen kenn mënut tee ngeen jot ci bu réew mépp ne woon du ngeen jot da ngeen jot waaye ku ci doon pexe réew mépp ànd ak yow coow lu dul jeex ci yàlla dogalul nga am ci nguur dara doo am ci nguur dara kon nee na mi ngi dénk ngeen rafetal wutin bu baax a baax sëriñ bi nee na askan wi mi ngi di dénk ngeen yow ca xam ne woote ji ne mën na ko def waaye boo wootee delluwaatal sa kër lépp luy moytu co luy indi fitna nee na sëriñ bi nee na mi ngi koy dénk ñim ko sañ a dénk ñim ko sañ digal di ay ay taalibeem di ay ñim nekk seen jawriñ mi ngi leen koy dénk nañu moytu lépp lu jur fitna bu ay wata jotee fii ak àggaguñ ci wata yow téel sa làmmiñ ku mel ne man xamul ci politique dara coowoo guddi ak bëccëg yàq ci sa waxtu yu dul jeex di ci def ay commentaire yu dul jeex jëru ko ndigal ba wata jot nga wata ji fa ngay tànn ca delluwaat sa kër lu yàlla dogal mu neex la te jàngee ko Serigne Saliou Serigne Saliou radiyallahu anhu daa am ay ay iranien yu fi ñëwoon laaj ko ne ko Mbàkke muy élection mill 2007 ñu laaj sëriñ bi ne ko ndax yow da nga wata ji mën a déedéet ñu ne ko kon koo àndal ci ñi fi nekk mu ne man de ginnaaw ginnaaw demuma ca fa ñuy tànne damay bàyyi ba askan wi tànn ku ànd ma ànd ci ak ñoom kon képp koo xam ne yàlla dogal na ñu tànn ko it askan wi lay rafetal ak ngëm yàlla moo ñu ànd ci ak moom nee ñu koy dénk bu baax a baax ca fas yéene nag bëgg nag ñu sàmm ko bu baax a baax sëriñ bi nee na mi ngi dénk yëngu-yëngu yi amit bokk na ci am am réew boo ci bokkee ci yàlla dogal mbooloo mi képp nekk ci baas bi bu doonoon tey ñooy sa sëriñ Falilu wala sëriñ Abo di seen jëwriñ war naa wax ci lii ku ne xam na ni njàngum réew mi coow li bari na diggante ñiy jàngale ak ñi nga xam ne ñoo état bi sëriñ bi nee na li mu leen dénk lenn la mooy lenn ndab ngeen di sotti na leen ndab li ñor mooy do mooy xale bi doomi réew mi bu ci kenn moom gis boppam bu ci kenn ci moom wane dara jaam bu ci kenn ci moom wut intérêt ba tax ñu nar a lor doomi réew mi nee kon na leen doomi réew mi yitteel na leen avenir réew mi yitteel na leen njàngum réew mi yitteel na leen yar bi yitteel ba tax nag ku ci mën a doon la nga mën a bàyyi ngir avenir xale yi ngir njàngum xale yi nañ ci bàyyi xel état mooy kilifa jamono ju nekk moo war a wàcc waaye bu wàccee na wàcc ni war a wàcce ngir ngir dabu ngir dabu ak sowe réew waaye bu wàccee it jàngalekat yi ñoom it ay ay na nga xam ne ay noble lañ njàngale métier mu riche la moo xam ne kenn du kenn amut ak fayam kon bu ñu demee ba àgg ci yenn nii nañ ci daal di fekkente ak état état fekkante ak ñoom ñu daal di dagee ngir sauver xale yi sauver seen avenir ndax yitte la comme doon ci sëriñ si seen i taalibe nga ca seen i domba seen i dooma nga ca seen i nga ca nee kon mënu cee ñàkk wax la ñu tegee ci jeexal ci mooy wér gi yaram gi noonu noonu la coow lu bari wér gi yaram dafa nekk luñ lu ñuy sàggane dafa nekk lu ñu sàgganee ne kon lam dénk jàngalekat ya lay dénk docteur yi lam dénkoon état bi lay leen dénk mooy nañuy waxtaan ca bu ñuy waxtaan pas-pasu déggoo nekk seen biir pa jiital intérêt askan wi nekk seen biir boobaa kon mbir mi dana yomb ci ñoom lool foofu it nañu ci bàyyiloo xel bu baax ci jeexal ba ne dañuy wax ne état bi war nay bàyyi xel lool ci wàllu wér garamu askan wi ndax ñiy publicité ci rajo yi di publicité ci télé yi fajkat yi bari na lool laboratoire yi bari na lool as état boo xam ne ministre de la santé ma nga ca ay nit ne fàng ci ab télé mel ni man toog ba ci yàgg rek nga daal di wut sab laboratoire daal di tàmbali naan mën naa faj nangam mën naa faj nangam mën naa faj nangam ñu libéré leen askan wi loolu état na ci bàyyi xel na ci weeye bu baax a baax jeexal bi mooy journaliste yi mbokk yi yéen journaliste yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay rafet na lool ci xew-xew bu xew bu nekk waaye nag dee leen bàyyi xel ne yéen day benn bis man ngeen cee yee fitna man ngeen teel caalum réew bu leen neexee kon xabaar bépp bu agsi ci yéen boo xam ne nar naa taal fitna nar naa yëngal réew mi sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk ngeen nës nësal ko ngeen bañ koo génnee ndax ñàkk génne ko du benn bàkkaar ak jaamu yàlla la nee na lépp lu ñaaw lu jëmati ci nit rawat na kilifa moo xam kilifa ak diine moo xam kilifa ak aada nee na lu ñaaw lu ngeen jotee ci moom nee na dee leen bàyyi xel ne génne lu ñaaw yàlla daf ko xaraamal tashyi'ul fahisha yàlla daf ko xaraamal nee na képp koy def dana la mbugal ci àdduna bu yomal xayma dana la mbugal ci nee sëñ moom nee na yéenewut kenn mbugalum àdduna yéenewut kenn mbugalum àllaaxira moo tax du noppi ci lii ñoo ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, muy discours bu am solo di discours bu fees loolu loolu loolu ak i jàngat mooy loolu nga xamante ne que sëñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadil moo ko doon wax noonu ci arab sëñ Alaaji Njaay Ndindi euh, dellu ko tas ko ci li nga xam ne moom mooy làkk wolof waaye sëriñ bi rek jóg ko ci ay point yu am solo gis ngeen sëriñ bi fi mu accentué discours am wax na ci li nga xamante ne que moom mooy enlèvement yi ñuy def ci xale yi di leen yóbbu di rey ak di leen sacrifié gis ngeen dem na ba jukk sax xale boobu nga xamante ne que moom la ñu reyoon fi nga xamante ne que mooy ci tëngéej di sëñ Fallou Ba moom seriñ bi métti lu ko loolu wax dëgg yàlla ndax loolu ñuy def xale yi met na trop te ñaaw na sëriñ bi delluwaat wax ci li nga xam ne moom mooy wàllu politique wax ak ñi nga xam ne moom mooy pouvoir wax ak ñi nga xamante ñoom ñooy opposition xamal leen ne que vraiment li ngeen di bari bari bari teewul minorité ngeen ci réew mi ndax tey bu ngeen bu ñu leen dajale woon yéen responsable yeeg ñi parti politique yëpp askan wi ñooy leen ëpp ba joxe ci exemple boobu nga xamante ne que moom la Cheikhou Salih euh, seqoon ak iran yi képp ko askan wi fal rek. moom laa àndal man Serigne Saliou Serigne bi mu ngi ñaan waaye politique ci ñu dal di ñaan politique ci à la retenue ñaan politique ci le sens de la responsabilité pour que ku ci nekk xam ni que rek dëgg-dëgg réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. wax na li nga xamante ne aussi mooy ci wàllu enseignement enseignement nee na wàllu état ak ñi nga xamante ne que moom mooy jàngalekat yi benn ndap rek la ñuy sotti muy xale bi ku ci nekk bul xool sa intérêt. ba lor ki nga xamante ne que moom mooy xale bi ndax xale bi moom mooy dooneem ak ëllëg kon exhorté na ñuy am ñoom enseignants yi ak état ñu dellu au table de la négociation mën a waxtaan ba trouver accord yoo xamante ne que dana mën a jariñ gune yi te bu jariñee gune yi rek jariñ askan wi te bu jariñee askan wi jariñ réew mi wax na tamit ci yi xamante ne que mooy suñu mbokki journalistes yi ci wàllu intox wala ci loolu américain di tuddee fake news mooy di sos wala xëy di yokk wala nee na kilifa yi tamit aussi bu ñu defee loo xamante ne que amaana jar na suturaal aussi ñu def ko ndax nee na génn information boo xamante ni dafay taal awaskan wala génn information boo xam ne dafay taal am réew neena na journaliste tamit nañu am responsabilité boobu sëñ bi en grosso modo def euh, discours boo xamante ne que dëgg-dëgg moom la ñu xaar ci chef religieux waaye def discours boo xamante ne que dëgg-dëgg bés su mel nii bu ñu fi dajee dañu war di dañ ko war di waxtaanee mooy des thèmes d'actualité wala des thèmes yoo xamante ni que askan wi ko ci nekk dina ci mën a gis sa bopp xam naa rek li ñuy def ma Ibrahim mooy xaar ki nga xamante ni que moom la nguur gi yebal tey di la ministre des monsieur Matar Ba di maire Fatick di euh, kaddu yoo xam ne moom la ko président yebal tey mu war ko ñëw jébbal ko ki nga xam ne moom a Cheikh Aboul Baraka te ko ci loxoom. mu jël ko séddale ko ki nga xamante ne que moom mooy njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadel ñoom itam ñu mën ko jël rek te ko ci loxo ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir tey toogal fi nga xamante ne que moom mooy Cheikhul Khadim xam naa rek euh, d'un moment à l'autre ministre bi dina jël parole ndax dafa mel ni que rek moom moo des ci ñuy war a jël parole ndax jàkka jaa ngi noonu di maanaam di woote xam naa bu ñu rawantewul ak waxtu wi rek euh, léegi julli waxtu. julli waxtu wi jot te ku ne xam nañ Touba moom côté julli moom daanaka amu ci masla fi mu nii bu ministre bi waxul ragal naa ni bu ñu noddee mu tombe ak waxtu yi eh, fii la ñuy bàyyi jotaay bi eh, dem julli te effectivement inna salaatu tanha anil fahshaa'i wal munkar xam na le ministre Matar Ba waaye suñu Alaaji Njaay Ndindi gis ngeen ni mu séddalee discours bi noonu vraiment discours bu sedd xol discours bu ànd ak responsabilité waaye di discours rek euh, dëgg-dëgg boo xam ni euh, am na solo trop am na solo ci bés bi waaye Cheikh Abul Baraka mu ngi toog noonu waaye maa ngi seen Serigne Cheikh Abdoul Khadir moom tamit di xalif seen ajili xanaa rekk euh, mbay peex mooy jël parole noonu mottali lenn ci délégation bi bu noppee ñu jox Matar Ba. gannaaw loolu sëcc Serigne Fallou yi. dafa amoon conférence bu rëy bu ñu tuddee woon sëriñ maam euh, sëriñ Cheikh Ibrahima Fall boobu itam ki ko yoroon mooy ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Jëmb jël délégation bu rëy ñu ñëw fii taxawaay bi taxawaay bu ma sëkk ñoom Baye Fall yi kon nag war nañu leen sant ci ndigal turu sëñ Modou sëñ euh, Cheikh Jëmb te xam ne sët yi gis nañ seen taxawaay bépp li nga xam ne nag doxaloon muy rajo bi yi nga xam ne amaloon nañ ko ci kër yi yëpp itam bëggoon nañ koo leeral waaye ci waxtu wi la ñuy njëkkalanteel waaye nañ xam ne loolu lépp fu ñu fi dem rek muy sëñ Ibrahima Bousso muy sëñ Bay Sàll muy waa Daaru Salaam muy waa Xaayira ñëpp gis nañ taxawaay ba lépp it sëriñ bi jot na ci ñu ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf turandoo yi nag ku sa bàyyi tuddee sëriñ mën a toogoo fay moo tax turandoo yëpp jo sant nañ leen léegi nag monsieur le ministre Makhtar Ba yaa teewal président de la république Macky Sall ku ne xam na yéenam ci Touba waaye sa jataayub tey bii tontu na ba sa maam déwee siin dem seeree li bur sin euh, sëriñ Tuubaa bur sin ku ma dooxeen sa maam ba mu seeree li sëñ Bamba euh, ndar jataayub tey bi fay na ko dafa dindi mantoom dóor ci taabal ji gel war laa munut maa wax lu amut sëñ Bamba jàpp ak julli rek laa xam ci moom moo tax président yebal la tey ñu déglu ko bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba bu baax di bëggit sëriñ Fallu bu baax a baax sëriñ Abo xalif généralu kër sëriñ Fallu ñu ngi lay ziar ñëw fi tey ci ndigalu président Macky Sall njiiti réew mi nekk ci njaboot gi nekk taalibe it yónni ñu ñu ànd si fi tey ak le ministre Oumar Gueye nga xam ne moo yor wàllu napp gi ànd fi it ak ki nga xamante ne mooy deuxième questeur u assemblée nationale madame Awaña ànd fiit ak gouverneur u région Diourbel Mouhamadou Moustapha Ndaw ànd it ak préfet département Mbacké muy Mouhamadou Lamine Sané ànd ak kilifa yu bëri muy ñi bokk conseil économique et social conseil spécial Isma Dioum a ngi fi waaye ñi bokk yit ci yeneen kuréelu réew mi muy institution de la république yi ñëpp ànd nañ fekk fi ay responsable yu mag ñu ci mën a tànn rek ñaar ba ñett lim leen muy ki nga xamante ne mooy honorable député Serigne Modou Bara Dolly fekk nañu ko fi fekk fii it ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Mbàkke te ñu fal leen ñu nekk ci conseil au conseil des collectivités territoriales madame Mbaye mu ngi ci waaye it fekk fii ñi nga xamante ne yëngu ci mbiru jamono yor ay parti politique ñi bokk opposition ñi bokk mouvance présidentielle di leen nuyu ñoom ñëpp nag ci taxawaay bi ñu taxaw waaye di la ziar di la jëbal nuyoo président Macky Sall di ko jébbalit njobootu sëriñ fàllu yëpp di nuyu bu baax sëriñ Abdou Fata nga xamante ne mooy yor organisation bés bu réy bii muy Kazu Rajab di nuyu ki nga xamante ne mooy sëñ Maam Mor Mbakke ci teewaayam di nuyu it suñu sëriñ Cheikh Abdou Cheikh Bass Abdoul di ko ziar bu baax a baax di ziar mbokku taalibe yépp ak njobootu sëriñ Touba. balaa ñoo dugg nag ci li nga xamante ne moom lañ ñu yónni du bari parce que dinañ tënku ci ndigal li pour ñu njëkkante ak waxtu wi dañuy ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalif général des murit mu yàgg fi te wër ñaanal ko sëñ Jëmb Fall ñaanal ko mbooleem kilifa diine yi ci réew mi li ñu yónni dañ koy tënk rek ci ñetti pàcc yu gaaw a gaaw mooy ziar gannaaw ziar bi ay sàkku ñaan la pour réew mi la ca des nag taalibe bi ñu yónni moo ko ca yokk parce que bu ñu la yónnee nag ci sa biir biiri sëriñ booy tëj mën nga caa yokk lu jóge ci yow li nga xamante ne moom la président Macky Sall wax mooy di la ziar bu baax di la sant di la gërëm njobootu sëriñ Fallou yëpp mu ngi leen di sant parce que gis na seen taxawaay ak jàppale bu ngeen ko jàppale defe naa ne Alaaji Baara yàlla na yàlla yokk leeram ku nekk ci réew mi wala nga jege président Macky sàll xam nga taxawaayam ci wetam moo tax yow mi nga xamante ne yàlla def nga jiite tey famille bi seen diggante ñëpp xam nañ ko digganteem ak sëñ Abdou Fattah ñëpp xam nañu ko réew nag bu ñu taxawee fii ci réew mi naan république tudd Senghor bu ñu nee république dinañ tudd alaaju Fàllu parce que kuy tabax jàmm ngay wut nit ñi jàppale la nga mën koo am waaye bu jàmm amul tabax ba du yegg parce que bu ñu nee sengoor moo créé république dañuy fàttaleku Senghor seng ca kaw taxaw ci wetam jàppale ko Sénégal dal mu tabax li muy tabax ba tey seet yeeg setaat yi di ci jëfandikoo loolu nag nga xam ne ne dogg la Sëriñ Fàllu defaloon ko Senghor dogg boobu la ñaan ci réew mi njobootu Sëriñ Fàllu njobootu Sëriñ Tuubaa parce que Sénégal nag benn dëkk la kenn du ko xar ki yóbbu lii ki yóbbu lële moo tax wax ji nga xamante ne déclaration la bu sëriñ bi liir léegi dafay fekki yóbbante bi ñu yóbbante fii nga xamante ne foofu fii la ñu ñëw jàmm lañuy ñaan ci réew mi nit ñëpp ay mbokk lañ ay way gëm yàlla lañu leneen lu xew dañuy daje ñun ñëpp kon leneen lu xewit nañ ko lal ngëm yàlla liggéey ci ku ci nekk def ci lan ca war a def te ñëpp jublu ci ci lu baax réew amul kenn ku ko yor da ca xalaat lu dul jàmm moo tax ñun ñëpp dañuy ñaan rek sëriñ bi nga ñaanal réew mi ñaanal président Macky Sall yàlla may ko mu yeggali li nga xamante ne moom la mu bët ci réew mi ci jàmm ak sutura euh, bu ñu jógee ci loolu mooy lii nga xamante ne mooy bés bi gërëm nañ fi administration bi gërëm fi nguur gouvernement bi ci seen taxawaay waaye taxawaay boobu taxawaay bu war la bu jaadu la parce que bés bi bésu ñaan la waaye bésu kéemaan la am na luñ ci gëstu xam nañ ne bés la boo xam ne dafa coïncider ci voyage nocturne assention ak juddu Serigne Fallou ren nag defe naa ne ci àjjuma ji la woon Kazu Rajab te bu ñu yëraatee téere yi dinañ xam ne moom itamit ci ajuma la gane àdduna jàpp nañ ne lépp lu ñu fi ñaan yàlla dina ko def te jàmm moo lal lépp ni ma ko waxee léegi di ñaan it fi ñu jëm nga xamante ne nawet la ñuy jublu yàlla def muy nawetu jàmm nawet boo xam ne ndox mi dina bari te barkel te bu mu yàq di waxit ne jafe-jafe àdduna ak wax ci réew mi li ñuy wax ci xale yi ñuy jël ak leneen ak leneen yépp defe naa ne bu ñu ñaanee gëm yàlla rek lépp nit kuy def loo warta def di nga ko dindi teg ko ci suuf eh, beneen mbir mi nga xamante ne mënuñu koo ñàkk sedde moom mooy Sëriñ Fàllu li may yokk rek moom mooy lii sëriñ Bass Abdou Khadre wax léegi ci sëriñ Fallou ci ku dogu mu fekk la ci ñi ko woowul ci réew mi bariwul nit di nga nekk ci ay xat-xat kenn du la dégg nga woo ko te loolu mu ngi fii am ba léegi eh, li may wax si nag mbiri sama mbir bopp la parce que ñaan jàmm moo ëmb lépp te président Macky Sall li bëgg ci réew mi mooy réew mi jëm kanam am jàmm nit ñi dem di dikk koom-koom bi yokku béykat yi nekk ci jàmm nappkat yi jekk ci jàmm képp ku fi liggéey nga nekk ci jàmm te yaakaar nañ ko ci bés bi ñaan yi mosta dakk waaye ñu ngi koy feddali ci bés bi nga xamante ne dañuy def cérémonie officielle u Kazu Rajab euh, dañu tukki fii dem ci benn réewu tubaab ab tubaab ñëw ci man ne ma kan lan mooy fàllu ma ne ko lu tax nga may laaj loolu mu ne ma Sénégal laa ñëw fu ma tourné ñu ne ma fàllu xaw ma luy fàllu ma jëm ca expliquer la ma xam waaye defe naa ne koo xam ne cinquante ans ci gannaaw nga dëddu e, sëñ fàllu yaa ngi turandoo yi yal na yàlla yokk waaye da ngay gis xale bu judduwul boo ko laajee mu ne la maa ngi waat ci sëriñ fàllu loolu nag bu amee ba ñu ñëw fii seede ko da ci baax en tant que taalibe waaye ñëw bi ma ñëw fii lu dul jeexit am ay jafe-jafe wala am mëbët ñëw wër garab gi ci bunt bi bu ma mënutoon a dugg ci biir it nekk tout tànk su ma julee fële ba pare Cheikh Abdoul Khadir yàlla na yàlla lokk leeram ñu taxaw mu muñ ñu ñu ñëw wër garab gi dellu fa ñu dëkkoon loolu mënu fee jóg parce que la ko fi def du ñun moo tax ñu ngi ñaan mbokk taalibe yi yépp ñu jàpp ci réew mi dégg nag discours bi nga xamante ne moom la ñu jox fii léegi ñu doxe ko lal ko ci gëm yàlla yàlla jàppale Sénégal yokk waa Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah waaw taalibe moo doon wax. gis ngeen le ministre Matar Ba moom moo doon def discours boobu nga xam ne vraiment discours bu am solo la waaye it euh, discours bu bari njëriñ rek. Euh, di discours boo xam ni moom la ko président yebal discours jàmm di discours boolewaat euh, xol yi discours àndaat euh, nekk benn ah, dañ dul xam rek lu ci tegu waaye dafa mel ni que léegi ñu yëkkali jotaay bi parce que waxtu julli daanaka jot na xanaa Baye Mbaye Peex moom mooy lim rek quelques personnalités yoo xam ne ñoom ñu ngi ci biir euh, bâche bi te dafa fàtte woon sax naa rek ñu bàyyi suñu Baye Mbaye Peex continuer su ko defee rek ñu yëkkati jotaay bi bi nga xam te ne moom la ànd waaw waa kër sëñ Mo Diouf Lambaye sëñ Aliou ñu ngi noonu ñoom tamit uh, ñëw ci li nga xamante ne moom mooy uh, cérémonie bi waaw moom moo war wax noonu. waa kër mu ngi xamal ni que waa Cheikh Amadou Rafa yi moom mooy euh, ndeysaan ah, wax noonu moom itamit di borom xam-xam bu tëdd waaye di jàngalekat dëgg ku ne xam ne ni jumaa jumaa jee ci Alieu moom moo fay moom moo fay jiite ndeysaan di def euh, xutba yu am solo yooyu waaye xutba yu bari njariñ yooyu waa si Murtada Falilu ndeysaan ko ñu teewlu maase gi moom mooy Cheikh Amadou Rafan yi Cheikh ngi xamal ne que délégation la maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall yëg si nañ ñoom tamit waaye ñu maase teewlu kaddu yi ku bari njëriñ di bàyyeekoo ci gémmiñ ku bari njëriñ di jàngalekat di borom xam-xam Cheikh Amadou Rafan yi kon ñu teewlu ko rek xam naa ni mën cee jëlee li nga xam moom mooy ay njëriñ. dina ñëw léegi si li xamante ne moom mooy yeneen discours yi fi nga xamante ne moom moo fi war a am bismillahi rahmaani rahim assalaamu bokki réew mi bokki Afrique noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Serigne Abdul gannaaw ba mu jotee ndigal lu bàyyeekoo ci sëriñ Abu Baraka jaar ci sëriñ Bachiru miy jëwriñam sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci seen bis bi nga xam ne wuyu woon ngeen ko ci ànd kook ñoom mu di leen xamal ne nag bi ko sëriñ aboo joxe ndigal daf ko joxaale ndigalul dem ba ca sëriñ Tuubaa sëriñ Muhammadul Muntaqa mu xamal ko ne ko sa bisub jur ba ak seeti na soo ne ñu def ko ren ñu def ko nañu ko daa defe soo nee it na fi yam kenn duutu ko waxtaanee desu ko ti am ndox ndax kër sëriñ Fallu akuk taalibe moo deme noonu yilla ji tax ñuy woote bis bi nag am na lay wu leer nañ wu tege ci texte ginnaaw ci officiel lañ nekk bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk wa wassayna al insana bi walidayhi loolu li waraloon suñu boroom wàcce ko am na saxaabi bu ñuy wax saadu bnu abi waqaas radiallahu anhu ba mu duggee ci lislaam yaayam da ko ba mu ñëw mu ne ko léegi danga may wax ne mag nga lu la neex tànn waaye soo génnut ci loolu nga dugg dootuma toog ci kër dootuma lekk dootuma naan ba mu dawee ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi ne ko demal wax ak moom ba muy toog ci kër di lekk di naan lum la wax nangul ba mu des génn ci pas-pas bi nag moom la alquran di wax naan fala tutihuma wa saaxibhuma fi dunia maarufa kon yàlla moo fab nit dénk ko way waaye dénk fabaat way jur dénkaat ko nit waaye bu ñu demee ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ca fekk muy wax ne euh, ngërëmul yàlla jullit bu ko bëgg mu ngi gën a gaawee ci am ndigalul way juram ridallahi fi ridal walidain wa soxtullahi fi soxtil walidain dellu ca teg ne kuy jaamu yàlla nam ko war a jaamoo ci pas-pas bu dëgër boole kook di topp ay waajuram gannaaw bu mu joxee yàlla wàllam donte yàlla moom lépp na ko wóor ni fii lay tàmbalee gis teraanga te bu ëllëgee lay raw al abdul mutiu li walidayhi wal mutii li rabbil alamin fi ala iliyin kon foofu lañu ñu teg woote bi du luñ sos sëñ Fallu Mbakke moo ko daan def ci ak dundam ba bi mu fi bëgg a bàyyi ko mu batale ko ñi ko fi jëkk a wuutu ka ca jiitu du sëriñ Maodo Bousso Dieng ak alxaaji ba alxaaj baara kenn ku ci nekk yoroon na ko yorin wu rafet ba ni ko yàlla indee ci loxoy sëriñ Abu Baraka yàlla na gën a yàgg ci loxoom te saa bu geesee geesoo gis njaboot gi ñëpp topp ci ginnaawam Eh, sëñ Fallu moomu nag ñuy topp ndigalam moo doonoon kan moo doonoon borom pas-pas bu dëgër donte woote yi bari na lool waaye ñaari tomb dong lañ ci indi yoo xam ne benn du ci mat ab minute ñu xool ba xam jar na wuy ji walla jaru ko eh, bu fekkee jamono daa dem ba pas-pas tàmbale xumaag te yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxoon ne pas-pas moo ko weñ ak ko weñ ñoo niroo weñ gu ñuul bu ñu ko dàggewul rek mën naa maax bu ñu demee ba pas-pas yi ñii di sikki sàkk ba xam lañ façon moom la walla du moom jar nañu woote waxtaane pas-pas bi Sëñ Fallu yoroon digganteem ak yàlla am na ci mbindam te bokk yi ku bind yomb naa waxtaane ku bind yomb naa waxtaane lool bi ko nit ñi jàmbatee njàmbat yu bari ku nekk soxlaam daa wëlbatiku jàkkaarloog boroomam subhanahu wa taala jëfandikoo ci mbindiin wi luy wone pas-pas bu dëgër bu mu fas digganteem ak yàlla bi muy wax naan la li gayrika la nashku ilaahal wara amra bu dul yow du kenn ku ñuy jàmbat njàmbat yi moo ne booba boroom Tuubaa mi ngi fi woon xamoon na ko waaye daa teg borom Touba fa mu ko war a teg waaye bu te bu yàlla teewee it mu teg fa mu war a teg yàlla waaye bu doon woote waxtaan waxtaanu pas-pasam ba jar na ko ci sikki sàkk gi nit ñi sikki sàkk ci seen pas-pas waaye bu doon ak taalibe it mu jar ko ndax am na baat bu nit ñi jëfandikoo di ko jëfandikoo ci ku nekk naan diw daa jaay ak taalibe ak ak njureelam jëndee ko taalibe loolu ku ko waxati war naa am lu mu ci jox sëñ lu ndax moo ko jëkk def moo ko jëkk a wax moom rekk lañ gisagoon mu bind waxanteeg sëñ Tuubaa jaayanteeg moom ci mbind sëriñ Tuubaa tontu ko ci mbind mën naa am nag yeneen waaye yooyu feeñaguñ kon bu fee bu ca feeñ rek fekki booba ba muy laata jaayan <coughs> moom <coughs> dafa dàq ci saa si njureel gi dox seen diggante yaa ayyuha cheikhu nafis la wax yow sëriñ bi nafis nag euh, neexut yombut am baat bu koy tekk ci wolof yombut ndax lu cher bokkut ak lu ñuy jaayee njëg gu bari lu ñuy jaayee njëg gu bari cherut ndax am nañu ko yàlla man loo waaye lu cher mooy loo xam ne jaayut lu cher mooy lu jaayut mu ne ko biatu bu nu watiya bil iraada Euh, loolu ba mu ko bindeek léegi junj naa ko léegi mbind feeñaatagut kon bu ñu woote woon ngir waxtaanee jamono yi nga xam ne lu nekk mi ngi fef nit ñi ñu ko tudd ak taalibe jaroon na wooteel sëñ fallu ci bisam bi waxtaane ak taalibe fu muy tàmbalee ak fu muy yem waaye it wéeru ci yàlla bàyyeekook sa bopp euh, sëriñ Bachiru moom sëñ Abdul Xaadir junj na ko léegi euh, lu wér la na mu demee mooy fii la toog ci jumaa ji ndax moo mosoon naa doon imam ji di xóotu ba ba mu yàgg ñi ko xam xam nañ ne am nag soppiku ci kanam gi ba mi ngi tuur ay xéewal mi ngi jooy ñu téye loolu dem ca ëllëg sa muy julli du runge saar yi runge mooy jóge ci fii dem ca fee ku al alxuraan mënoo ko ñu ne ko ñaar yooyu jaaxal nañu lool nu mën a ame xutuba yi am na ci yoo xam ne yaa ko bind alxuraan ji ak ñëpp ko bokk waaye am nga ci sax may mu ne leen damaa gis ci sàppe si ak nite ma dikkal ak nite moo ma dikkal ma gis ci sàppe si ñoo xam ne ci laa xamee ne doonatuma ndaw te mag ku dem mu dem ku demut mag dem ma gis ci sama biir kër ay gunóor yu sew yuy ñur ñuri ragaluma fa ma jëm de waaye gunóor yooyu daal la sama xel na yar ak nit a dikkal ma ma tuur xéwal yooyu wala ma jaxase saar yi ñu ne ko bay boo nga sàkk ci pexe de mu ne sàkk naa ci pexe ba noppi ñu ne ko pexe moo ci sàkk mu ne bàyyee naa leen ak yàlla loola la ciy firnde kaye bii ma yor xabaar bu yes peq la mbooleem lu suñ fa lu amoon ci alal moom lañ ci bind waaye tey kuñ ko buggoon a féetale ne boo ko jëlee doo jëlaat let duñ doo amaat leneen doo ko nangu xam nga lu ci nekk mooy dara bu lal bu weex potu suukar euh, ñaari siis yi dénk euh, ak jaarooy nopp xeet yooyu dong moo ci ne gàññ li ci gën a cher ab wata la woon sept cent mille francs lañ bind ci kar kaye bii ma yor nii doomam ju góor ju nekk dix-huit mille francs nga am ci moom ci xayma bi doomam ju jigéen neuf mille francs dix-huit mille dollars sax mënut a yor nit juróom fukki at waxuma la waxuma la dix-huit mille francs kon ku doyloo woon yàlla la ku ko dénkoon léppam la kon su ngeen gisee ñu dëkk ci kër sëriñ bi suñ Abdul Fattah nee na duñ jàmbat duñ ñaxtu duñu ñuurumtu dara teewut nag ñu xam ko waaye dañoo ne ci ndénkaanelu suñu borom dañuy bàyyee lépp ak yàlla euh, suñ teewoon fii di lim di xamal nit ñi mooy kan ba benn bu ci nekk jar wooteel ko danañu fi yàgg lool kon foofu laa koy tënk ba ñu fekkewaat ko jàmm ñu jox ko ñeneen ñu gën koo leeral bu loolu weesoo sëriñ bi bala ñoo ñëw ci ministre bi mi ngi sant bokk yépp di ci jiital sëriñ Muntaxa ndax junj naa ko ci tàmbali bi ba mu ca demee di ko laaj yi ndigal yëgalu ko ko woon da ko doon laaj ndigal su ne ko woon buñ ko def ren moom duñ ko def waaye cant gi mooy lim ci joxewaat ndigal ñu def ko nañ ko daa defe loolu suñu banku ci sant di ko ci ñaanal yàlla euh, suñu borom gunge ko ci yan bi ba mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale ci jàmm ak salaam tañ fekkee ko ñu ñëpp ci ginnaawam di sant itam mbooleem njaboot gi ñi nga xam ne euh, ñoo dëkk ci dëkk bi di ñu jege lool ci bokk ak ñi nga xam ne bokk yi gën a yaatu moo moonu boole muy bokkuk pas-pas ndax fan yii dégg nañ fi ñuy laaj ku nekk ana dëkk sàngam kon woote bi mu woote woon na woote woon ne bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn ñëpp wuy si nañ ko loolu moo taxoon ñu ne nañ junj tomb yu gàtt ci li tax ñu doon leen woo ndax ku la woo war na laa wax wala mu jox la kon sëriñ baa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax di fasaat kóllëre gi ci yi nga xam ne jotoon nañ ko séq ñi nga xam ne it ren lañ soog a ñëw ñu xam ne lebal nañ koo xam ne du ko dese mukk pusa ba réer ci loxoom jërë ngeen jëf gannaaw loolu nag ministre euh, Maxtar Ba walla moo tuddee ko ni ko tuddee rek Matar Ba sëriñ baa ngi lay fay di loo ab nuyoo di la ñaan nuyoo bi mu tàmbale ko ci ñim dëkkal fii li ko tàmbalee ci kenn ku am ab néeg rek boo xam ne moo ko moom di kilifa ak néeg ba ak boroom kër gi nga xam ne ci la néeg ba nekk ak délégué karce bi chef de quartier bi chef de village maire su préfet préfet gouverneur ba ci yéen ba ci premier ministre nga xamal ko ne ko euh, xamalal président ne ko sëriñ bi gis na ndaw yi mu ko yónnee da koo yëgaloon bisub suñu fallu bi ni mu ko yëgale woon réew mi yépp rek ndax fépp moom bàyyiwul fenn ñépp bàyyiwut kenn waaye ba mu ko yëgee it yitte jëm ci def di ca gën a fës ñu mën koo teg loxo rek mooy yow mii moo la yabal nga ñëw ne moo ma yabal maag diw ak diw ak diw te jamono da ngay bàyyi dara rek def dara bàyyi googu ngeen bàyyi dara ñëwal ko rëy na ci moom lool naw bu loolu weesoo it mi ngi lay ñaan yow itam ñaan danga ne ko yaa ngi ñaan mu ñaanal réew mi dana ñaanal réew mi jàmm sax fi akuk yokkute waaye moom itam dana la yónnee ci yónni ci moom nga ñaanal ko mu gën a yërëm way néew doole yi ndax li tax mu di ko wax mooy suñ fallukat naka jekk way néew doole yi la daa àndal moo doonoon seen wéttal ku ci baayam masa génn àdduna mooy doon sa baay jigéen ji ci soxna boroom këram masa génn àdduna it taxawaay ba boroom kër daan taxaw ci dundal ak aar moo ko daa warlu kon kàttan gi ko suñu boroom jox jaarale ko ci loxoy nit ñi yoxoy nit ñi na ci jëfandikoo yërmande ndax bala ñoo xam boroom doole jëfandikoo doole jot bu jëfandikoo doole jotee mu yiir ñam ñam war a yiir dutuñ ko fàtte te danañ xam ne boroom doole la te jox doole la kon mi ngi koy soññ ci googu fànn bu baax muy dox di geesu na ko Serigne Saliou waxe woon bu yàggutoo loolu ñëpp ñu bari fekk na ko wala ñu dégg ko di dox du geesu njaboot gi bu baax léeg-léeg it mu waddal dara ay benn benn for loolu it du ci wàññi dara ndaxit it euh, maa ngi dégg démb benn xakim buy wax ne fu ak déem nekk jër sa wax ndax da ngay tànk yi bari fa lool bu ko defee nag la ko fa waral mooy la cay wadde ñu di ko for doonte déem yàlla ko fa def waaye teewul nit ñëpp am na ñu yitte kenn ku ci nekk na ko déglu lu mu ko wax mu xool lam ca man lam ca mënut it mu dalal xelam ba mu def ca yaakaaram kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jottali di ñaanit nga santal ko yow yéen maxtar ba ñi ngeen àndal ñépp muy aw góor aku jigéen ñi ñëw ak ñu ñëwul ñëpp nga xamal leen ne daal sëriñ bi moom sant na yàlla bu baax bi ko yàlla euh, boolee ci ñoo xam ne duñu jàmbat ñu ñaxtu ndax ndénkaaneel suñu borom lañ euh, ñu ngi sant di gërëm lu ci jub rekk maa fàttewut na ma ko sëriñ Abdul Fattah waxe woon lu ci mel ne neen ci man la maa neexutum xel njaboot gi yëpp it ñi ngi àndaat di ñaanal sëriñ Abdul Fattah jëwriñ gii mu doon jëwriñu sëriñ bi gën a yàgg ndax eh, man nag yàlla na gën a yàgg nii mu nii mu lii mu ci dafagun ndax jiital gi ko njaboot gi jiital ci ndigalu sëriñ Abo jaarle ko sëriñ Bas njaboot gi gis nañ ci seen bopp bu baax ndax moom day euh, mi ngi leen di geesu bu baax ci seeni yittey bopp yittey adduna yi rek damaa am lii damaa am laa mu jóg mu jóg bu ñëwee nekkal fa sëriñ Abo teewal ko fa nam ko fa war a teewale sëriñ bi ñu ngi leen ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ko ñun ñëpp lay ñaanal nga yàgg fi te wér te bokk fekk sëriñ Muntaxa ak sa bokk yépp lu yàgga yàgga yàgga yàgg la sëñ lu waxoon benn waay moom laay jeexale waa gi daa ñëw ne ko dama ànd ak borom baraag bi ba gisatuma ko Cheikh Moustapha nekk fi ma ànd ak moom ba gisatuma ko ma ñëw fii fi yow nag mu ne ko ngir lam mu ne ko fas yéene ànd ak yow lu yàgg a yàgg mu ne ko bul noppi yow nanga ko def sa wird gannaaw ku àndu nga bëgg a topp ca ka des loolu moom def digal na la nga def ko sa wird yow kon nag sëriñ bi yàlla na ngeen fi yàgg a yàgg a lu yàgg a di di sant ne nañ mën naa sant itam ah euh, média bi nga xam ne ñii dañuy bind ñii di wane ñii di wax sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp kenn ku ci nekk yàlla na gisu yokku ci ab liggéeyam ci daraje suñu fallu wasalaamaaleykum wa mbooloo mi ñu tàllal nag sëñ aboo ñaan sëñ fallu sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ñaanal Mbakke yàgg fii te amin presse bi yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen sant nañ presse bi yëpp jërëjëf Sen TV jërëjëfal ci Sen TV sant nañu gouverneur li ñu laa lépp ne sëñ bi nee na ñëw na jërë ngeen jëf presse bi yëpp sant nañ leen jërëjëfal ci Sen TV jëf mbokk yi nga xam yéen ngoon teewlu seen télévision ma fatul Bichri waaye dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ni sëriñ sëriñ Mouhamadou Rafaay Mbacke jërëjëf mbokki internautes yi gis ngeen cérémonie officielle baa ngi noonu li ci mën a jàppee rek mooy discours yu uute te lépp di njëriñ gis ngeen discours bi nga xamante ne que sëriñ Mamour Mbacke Falilou def na ko ci arab te suñu alaaj ñaay ndindi firi ko ci li nga xamante ne que moom mooy langolof li mu ci développe ci ay thèmes wax na ci li nga xam ne moom mooy xale yi ñuy jàpp di leen enlever di leen rey di leen sacrifier ba si ne ci xale boobu nga xamante ne que trondoo sëriñ Fallou la te dëkkoon fi nga xamante ne que moom mooy moom mooy tëngeej wax na aussi tamit ci diggante enseignant bi ak état ndax xamal leen ne que li ngeen di dab li ngeen di duy rek mooy état ndaw li ngeen di duy mooy xale bi ginnaaw yéen a bokk lépp lu ngeen bëgg mooy defar xale bi donc war ngeen a mën a juboo waa Cheikh Amadou Rafan yi borom xam-xam bu mag boobu Cheikh Amadou Rafan yi nit ku baax kooku Cheikh Amadou Rafan yi ñu ku sell kooku gis ngeen neenu mu jëlaatee kaddu yi diversifié ko ba jooxe li nga xam moom mooy yóbbante xalifa bi Cheikh Abou Baraka ak yóbbante gi nga xam mooy magam ju tër ja Serigne Fata waaye gis ngeen loolu mu dellu fàttali ko jullit ci ak doylu fàttali ko président fàttali ko askan wi kon mbokk yi li la ñëw indiloon ci cérémonie officielle bi fii ci Touba ànd ci ak yéen depuis démb ñun ak yéen sénégo kon ñu ànd ak yéen ci yeneen i jamono.